waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw loolu dañuy bañ a rek di woo Serigne Khadim Diop mu jege si Serigne Khadim Diop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 ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم تكبير تكبير تكبير وعلي بن بركل واي kii kat dafa muñ ba rek sëñ bi ñu di ko jox diplôme kon yàlla na ko yàlla barkeelal lii nag neex na seet na xol ndax effort moo ko may nii yaa ko sunde fekkoon dafa yaa ko wax lii waaye nangoo mu coono nangoo ay waajuram nangoo mu coono mu am lii kon yal na ko yàlla barkeel seen i waajur yal na leen aar leen kon nag suñu xaalis bi dëkk moom mi noonu gis tey daara ji ma doon nag yow ci alxuraan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 مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مثله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم محمد فاضل ما شاء الله ah ñuy gërëm seen Moustapha mi. ah Dakar bi am na cinq mille kon de jàmbaar la. ah barakallahu fiikum. yow moom jërëjëf daal na yàlla barkeel ah. jërë ngeen jëf mu ko jëndee bu paree doo ko jënd ci wàllu kii conférence bii la bëgg a jënd pour daara ji am kër location daa mel instant yi am na ko joxe dix mille yàlla ko yàlla koy yiw am na ko indi cinq mille na gaa yi ñëw vraiment toogal ñoo leen gaaw lii kat du du kii de du yaafus de liggéey la ñun nag daara yalwaan lañ xam yalwaan dañu koy aaye nag waaye xam. waaw dañu koy aaye nag waxte mag sàmm moom dañuy aaye yeewal waaye tamit moom nag soxna yi moom dee doon yooyu yem de am nañu waa leen kumba waaw waaw fu ñuy jëfee nag soxna yema góor ñi moom nañ bàyyi yem laa jëm après tey tàmbalee ko ci kaw góor nii daal moom baax nag cinq mille cinq mille ah waa leen ah, waaw nii la de cinq mille cinq mille rek noonu la si yal na yàlla barkeel na jigéen ñi ñëw bu pare ñu doog a dem ci góor ñi góor ñi suñu fànn laa koy tàmbalee waaw wecci ko góor ñi moom ci waaw cinq mille waa leen waa leen waa leen waa leen waa leen kumba waa leen kumba ay wa góor ñi na ñëw góor ñi bisimilah góor ñi na ñëw waaw alxuraan la de jërëjëf suñu xaalis kon tàmbali na xëy na góor ñëpp di bu kenn xeeb dara góor ñi moom du leen sas ndax xam naa ne moom borom kër leen ah suñu xaalis da indi na cinq kon da jàmbaar ah barakallahu fiikum ah suñ bi mbàkke yow moom jërëjëf yal na yàlla barkeel waaye ah jërë ngeen jëf waaye ah suñ bi yéen moom allah kat te dëgg góor ñi moom góor mën a jëm cinq mille ah wax dëgg góor waaye eh donc daa rey ñu leen aw gay ah wax dëgg góor waaye ah ah barakallahu maa ngi doon kontaan ci góor ñi nag ah alhamdulilah ah góor ñi nag duñu moroom jigéen ñi ndekete jigéen ñi nag jàmbaar waaye góor ñi seen seen kilifa ndekete aywa nag góor ñi ñëw ñu ma gisoon liggéey barakallahu fi ko seen aywa jërë ngeen jëf waay فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا منتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين jërëjëf Moustapha yal na yàlla barkeel ah wax dëgg yàlla di ngeen def na solo lool xale bu nangoo jàng alxuraan karim ah nangoo toog mun ko ba mokkal ko nekk du yomb te ñun ñëpp te dañu war a sonn ngir ñoom seen bis la de nañ leen ci mu neex kon xanaa yi mbokkam na ñëpp ñëw incha allah euh, ku ñuy wax nag soxna soxna Bousso Diop moo ko jox diplôme am njaayeen nag du ab jóg ah, ñëw nii xanaa yi am nañ ñëw soxna Bousso Diop anamu soxna bu sa Diop anam la soxna bu sa Diop anam mooy kan mooy kan nan ah alhamdulilah soxna bu sa mooy yaay si Moustapha ah Moustapha def na lu am am solo ndeysaan ah sa waajuru jigéen nga teralee ko lii ah Moustapha fonk na la de waaw ah. mbokk mi nañ ñëw première jigéen yi njëkk joxe diplôme mooy yaayam ndeysaan ñoo ki ki jox diplôme bi ak ñu ak parents waaw mooy si takbir takbir takbir ah li de ñam na masha allah soxna Boussa Diop di yaay si ndeysaan ah am nga doom ju baax de sëriñu daara moom koo jur moom dëgg yàlla jur nga tànneef waaw bu njëkk dañ naan naan jigéen moom kii bon kii a jur mbër ah léegi jur alxames moom mu de jamono ji ñu toll jur doom muy nekk sëriñ daara moo ko ko jàngale yombul taw feex suñu jigéen bi ko am santal yàlla kenn mënu ko kenn mënu la loolu mooy bu njëkk da ngay tas booy naa ko jur doom bi mel nangam tànkoor yi nga a wax naa ko jur tànkoor yi wala buur kon tànkoor yi xooloon na kon ku mën a jur tànkoor mooy tànk bu mën a jàngale di jàngale di jàng bay jàngale ah macha allah mbokki xale baa ngi noonu ndeysaan ñëpp kontaan nañ foto leen waaye takbiir takbiir mag ñëpp jërëjëf kenn Souleymane Fall daan xeex seen i bakkan di ci ma Jaxu Ba Cheikh Omar Foutiyou Tall di leen bëggoon ñoom maam Cheikh Ahmed Bamba moom El Hadj Malick ah, ma Abdoulaye Niass ñëpp di leen bëggoon Sénégal mu des mu kon effort yooyu yàlla fi yàlla saxal doom yu wutu seen i taxaw fañ taxawoo ñëw ba Ndakaaru bii fi jëm ak Alxuraanul Kariim nii te bu njëkk moom ab bawol bawol wala njàmbur njàmbur comme man daawoo ñi mete tan fii bala ñu woon ci sénégalais yi tey nag ñi ngi waat ci ku xolu Dakar di jàngal ko xale yi sénégalais yi ñi tubaab bi jàppoon dañuy def ay tubaab tey ñi ngi jàngal ñu leen jox seen i diplôme ak waajur ak nawle ak seen i am waaye Abdoulaye waaye juróom bu góor bu ngi tudd sëñ juróom bu قال هذا رحمة من ربي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي وكان وعد ربي حقا فتركنا بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعودنا في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفأصب الذين كفروا أن يتخذوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذي أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا sadaqallahul aziim macha allah Baye Abdou alxuraan ji neex na sell na yàlla sa borom barkeel ko saxal ko ci sa dënn waaw ah, alhamdulilah jërëjëf ah, Baye Abdou Ndiaye kon ay parents ni ñëw eh, ñu jox ko diplôme shahada kon mën ngaa teg micro bi nga ñëw nii léegi ki ko jox diplôme bi di oustaz Cheikhouna Seck di jàngalekat ci biir daara macha allah Moustapha yal na ko yàlla xam xel la lii li muy am bëriwul nga jël jàngalekat bi nga xamee nii rakk lay doon moo ci yow wala sa morom ne jàng rek nga jox ni ko joxal ma diplôme jiw loolu day wan ni respect kon yal na yàlla barkeel kon ay parents nañ ñëw ana ay parents ñu ngi takbir takbir waaw ngeen xaar ay parents yi ñëw waaw wala bii mooy photo sëriñ bi ay wala léegi xam ñoom bu ko defee parents yi ñëw wala ñu benn groupe ay wa xool leen Baye Abdou xoolal xoolal ku def photo macha allah takbir takbir lii lu solo sa doom bi moo ko doon fànn kari yombul lii effort la leen ñeenti at wala ñett la leen juróomi at xale tumaanke ci wax bàyyi yaay moom bàyyam ñu ngi ñoom koo tudd kon suñu xaalis waxee léegi ngir lan sama xam kari loolu yombul sant ci yow ñu yàgg ñu ko muurloo mu barkeel kon dañuy daal di njëkkante kaw waxtu bi. soxna Zeynab baada audu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يشكون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال

الأرض ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب إني لما أوتي من خير فقير فجاء فلما جاءه وقص عليه القصص وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين آمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الحمد لله kon ñu ngi woo soxna Sawda mi soxna Sawda Diop Eh, ñu niroog sama mbokk moo soxna Sow de Dior di yore daal wax dëgg yàlla alxuraan ji nga jàng rafet na neex na lool kenn bëgg woon nga bàyyi daa fekk ni waxtu wi moo ko waxoon waxtu wi moo ko waxoon daanaka treize heures quatorze heures léegi mu ñëw ndax ñi ci quarante neuf donc il faut ñu daal di woo say parents ñu ñëw ñu jox la diplôme bi eh, ay parents yi soxna nii mën naa waaw kay waaw Kumba wax dëgg yàlla alxuraan jàng neex lool waaw xale bu toog nii mbokk alxuraan loolu rëy la ci jigéen njëkk jigéen daanaka dañ naan wax ni njàngam amul solo léegi nag bu ñu sëriñ Mouhamed Lamine Ndiaye moo ko jox diplôme kon moom si Mouhamed Lamine suñ Moustapha jërëjëf suñ Moustapha suñ Moustapha boo toppee gan ñi ne doo mën a kii de léegi diplôme baa ngi nii ana suñ Mouhamed Lamine Ndiaye suñ Mouhamed Lamine Ndiaye ana mu waaw kay kon yàgg kon magam moo koy joxeel diplôme bi ngeen jàkkaaroo fotokat bi na xale bi jàpp waaw kay jàkkaaroo fotokat bi xool leen ko takbir takbir maa ngi leen xiif takbir yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel lii lu rëy la xale boo xamee ni amagoo 15 ans moo ko alxuraanul karim jigéen mu nekkoon lu tumuraan ko woon fii Sénégal ay eh, jamono waaye nag mooy bi tubaab bi ñëwee diggante bi tubaab bi ñëwee ginnaaw bi tumuraan ke nag la ko jiitu woon nag amoon nag waaw cadeau yi nañu xaar tuuti rek dañ ko téyewaale yéen parents yi waaw ndeysaan ah ah waaw foo leen fotokat bi takbir macha allah kon ki ki jàll léegi ki ko jaawaleel ba tey mën na arfaan gane si àdduna atum 2005 soxna Sawda baat a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim xudil afwa xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون ni riwaay bi nga xam ne moom la daara ji di jàng bokk na ci riwaay yi gën a métti ci riwaayaat daanaka ay këccile ba mu jeex ak ay tarqi quraat ay taqrir maa nga ngay këcc këcc këcc maam tuwaar kale daal euh, sëñ Moustapha yàlla na suñu borom fay yàlla yàlla sa borom fay la yiw wax dëgg yàlla liggéey bu rafet la wax dëgg yàlla te ada ada jëy na li koy jàng ada bu doy waar macha allah yal na yàlla barkeel suñu Famba jërëjëf ñu nga temps li am na solo lool riwaay wax ñu jàngee mooy fi gën a jafe ci riwaay yi xale bu ko mënee daanaka lu jàngat alxuraan foofu moom njàngee ndax lii li ci sànni moom li alxuraan moom mokkal na ko pare nekk léegi nag alxuraan ni koo jàngee nii da nga seen keneen bu jàng baax bu beneen façon waaye loolu moom du ko jàngale parce que li mu jàng moo gën a jafe moo gën a nekk léegi dañuy euh, wax ni kon léegi soxna Sow de ñu jaawale woon léegi moo nekk nii ki njëkkoon woo mu doon Zeynabou Ndiaye Seynabou Ndiaye nga xam ne mooy doom yi Cheikh Ndiaye ak soxna Aminata Badiane nga xam ne suñu xaalis mën nañu wax naan ñoom yaayam sax mi ngi jàngee daara parcelles yi moo ko kon lu rëy noonu. barakallahu takbir takbir waaw yal na yàlla barkeel waay Moustapha xanaa sa mbokk la kii ah war ngaa teel a takbir ah lii dafa am solo nii macha allah barakallahu fiikum waaw si Moustapha jàngal rakam bi jigéen ba ma ko alxuraan mu jox mu ko jox suñu Cheikh Diop mooy kan mooy sa papa ah macha allah ah lii neex na wax dëgg yàlla suñu Cheikh Diop mii papa moo joxe diplôme bi nii di ko jox doomam doomam jàngal ko alxuraan ba tey kon lii yal na yàlla barkeel lii daal aar leen sutural leen. Euh, kon dañuy daal di continuer diggante waxtu wi waaw incha allah. juddu atum 2007. الذين لا يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله السم البكم السم البكم الذين لا يعقلون ولو fitnatan تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم jërëjëf Serigne Awa macha allah alquran ji neex na sell na rafet na yal na sa borom barkeel te saxal ko waaw Serigne Awa Diop moo doon tari nii kon léegi dañu xam ni kenn moo des bu kooku daree rek tombé ñu noppi ñu jullee fii incha allah ñi fi nekk nag ñu dem fii ñu jëpp incha allah ñu doog a a ñaanalante. donc daanaka moom bu ma ko daan wax moom day di tawee ñu koy dégg waaye nag léeg-léeg waxtu yi mooy xaw a léegi si Modou Makhtar Diakhaté année parent xale bi nañ ñëwaale. baanaa xale bi nañ ñëwaale dañ ngeen noddu boobu wala noddu boobu en tant que sëriñu daara ji bu ko defee ñu woo benn xale bu ñu ñaanal wala boo amee kenn ci jël kàddu mu jël ko ñu doogoo xale bi ñu ñaanal muy juróom jigéen tudd Soxna Daba Seck juddu ci atum 2008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 الله الرحمن الرحيم رئيس na nga dem ba di gagné prix yooyu ñuy teg ci Alxuraan karim dem ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy teewal Sénégal fu ne ci monde bi ci Alxuraan karim te Amadou Ndiaye sa turandoo Serigne Amadou Ndiaye moo la jox sa diplôme te Serigne Amadou Ndiaye ku nekk nii dina ñëw mooy turandoo léegi mbokk yi dañu waxoon rek mooy dañuy julli fii incha allah. na ñëpp xaar ñu eggale daal di waaj julli fii léegi ah, buñ jullee wala ñuy julli nag su Moustapha dana jël kàddu ah, kii wax ci turu parent rek dana jël kàddu ñu doogoon a mën a ñaanalante léegi xam tisbaar yaat na bu 14 heures 15 loolu heure la bu tubaab joxoon rek waaye tisbaar yaat na lool fii ba 16 heures seize heures trente nangam tisbaar day jot wala vingt ba tisbaar jeexagul takbir takbir takbir diplôme bi am ñoom ñoo ko macha allah macha allah kontaan nañ ci yow yàlla sagal nga leen boo dawoon daara ji mukkaloo kon dañuy am gersa kon bu ñuy ñëw fii dañuy sëgg waaye lépp muñ nga ko ba heure bi na say moroom yoo xam ne dañuy daw daara bu ñu méttee duñu daw waaye gor bu daw de gor moom lu métti da taxaw rek nga affronté kon ku la gis xam ni gor nga gér nga na yàlla barkeel yaa ngi noonu léegi kàddu suñu Moustapha moo ci des bu paree parent de dina jël kàddu ñu daal di ñaanalante